toute, toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. maa ngi leen di siyaar di siyaar mbokku Sénégal yëpp bon di di naan jërëjëf sëñ Babacar jërëjëf sëñ Babacar ba muy juróom-ñaari yoon bon ñu xam ne daal bésu tey bi suñu bés le képp kuy jullit rek war ngaa mun a màggal bés bi parce que suñu bésa du bésu kenn. bu dee xajal mun nañ ci xajal ñëpp ñun ñëpp ci xaj képp kuy jullit rek xëj nga ci dal man la nak man la pap Cheikhou Diaw di magu nabu Diaw man ma seen taw yaay féete len mak seq ak ñom jàmm waaw na len yalla jàppale dal ci bark babakar assalamu alaykum may tuddu Amadou samba may tuddu amadou samba de ko Fass. di kontaan te ñëpp di kontaan di gërëm sama gaay yi di leen di gërëm bu baax di leen sant di leen di sant bu baax di leen xam ne wax dëgg yàlla ren gàmb bi macha allah neex na lool neex na lool di ñaare suñu sëñ bi na yàlla na ko yàlla may wér gu yaram ak gudd fan. yàlla dëgëral yax bi yàlla na ko suñu borom may wér gu yaram ak gudd fan yàlla na yàgg yàgg yàlla na yàgg taxawaayu gàmb bi. waaw gàmmu lañ naan bisimilahi rahmaani rahim te tellu si alhamdulilahi rabbil alamina ñu ngi sant suñu borom bu baax a baax di sant borom bés bi moom mat waaw ndax su du woon su du woon dara su du woon alaaji Malick ñu ñuy xam kan mooy yonent bi alaaji Malick dañ koy ñaanal fu mu tëdd nii yàlla li mu def si àddina yàlla nañ ko yàlla fay daal ndax suñu wax si alaaji suñu xol yi fees daal waaw xol fess na torop ndax suñu maam daf ñoo liggéey lo xamni ñun xamnu mom moy kan xamnu mom moy kan ndax li mu ñu defal li dañ koy santé yalla dal mom ma sha allah mom vraiment mom ñuy ngi bu baax te aussi mom ki fi fekk mom muy tànn mom ku baax la en plus ñi ci fekk tamit dal nañu ci jaamu mom amul leen lo xamante ne ni met nañ si dal bi te aussi ñu ngi koy ñaanal yalla na yàlla guddee fanam yok xewal gi waaw vraiment daal kontaan nan moom ba dëgg fa yàlla moom kontaan nan vraiment lépp loo xam te ne nii luy seen wareef def nañ ko moom instant yi moom amatuñ si benn benn benn loo xam te ne nii en tout cas li ñu ko a ñaanal mooy gudd fan ak wérgu yaram rek yàlla yokk xéewal gi. ginnaaw ba sant yàlla julli si yonante bi di leen sant yéen ñëpp di leen gërëm wax dëgg yàlla nag gàmmu gi nag liñ si doon séntu yëpp gis nañ lu kawe suñu njottu. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla moom li ma wax rek lii moom dañuy ñaan chaque année. gën a am yokkute yàlla may ñu kattan gën ñu may wér ñu koy mën fekkee di ko def chaque jour chaque année mais kontaan nañ trop trop. gàmmu gi ren macha allah bañ sant yàlla junni si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ñoo ngi gërëm ki nga xamante ne moo woote bés bi di ko ñaanal di ko ñaanal yàlla eh, taas ñu ci leeram ndax Euh, ku jara fekkle si la ñoo ngi jóge ba Kaolack ñëw jóge ñëw jóge ba kaw lax fekk si sama doom bu jóge dakaar ñëw ci gàmmu gi nga xamante ne yaakaarul kenn ku dul góor gi nga xamante ne moom la yëpp yaa moom la ñëpp yaakaar ñu ñëw fekk li si ko maag maag samay rak sama benn xarit bu ñu naan Bintu Fofana ak samay rak yo, xamantene sama samay nijaay len jur fat sar ak samay dom ñi nga xamantene ñoy magi euh, nabu ak rak nabu di aji di ndama di sukay di papa cheikhou mi nga xamantene ma moma joge a jóge kaw la si ñew fekk li si bes bi ñew dolel ci sen mak ak sen rak Binta mi sama xarit la moo ma indi fii dama yag na ñew Tiwaawan way nak moma indi ci kër bi wa Binta baax la am ko jullite la ku buggu nit samman man jaaxanke la mom muy séeréer waa da mel ni ñoo bokk ndey ak bay kon nak ma ngi leen di sante di leen gërem na bu maa ngi koy ñaanal yalla lim mun ren yalla na mun demel lu ko op ci barke yonante bi di leen maa ngi leen di sante di leen gërem waaw Lima yak bari na lima yak dafa bari parce que dama ñew tiawon en tant que talibé seigne Babacar warna ci mëna wax lu bari ci lu rafet parce dama juddou fekk sama yaay nek taliba Cheikh nek taliba seigne babakar sama rak ñew top ci man ma ñew top ci kon bok duma def len lu sante suñu borom diko gërem diko gërem ba muy juroom ñaar yoon. ah dal bi num ko gisee wax deug yalla amna changement na dal bi wax deug yalla tay numa sif numa numa numa ko fekke ni xel dalna ah wax dëgg yàlla nabu moom gàcce ngaalam ñoo ngi koy sant du koy gërëm ñun dañuy wax chaque année rek day gën di yokku chaque année day gën di yokku sa nabu wax dëgg yàlla ñun ñoo ko amee njukkal ñun ñoo ko amee njukkal wax dëgg yàlla moo ñuy wan ne moo ñuy wan yoon bi moo ñuy wan yoon bi moo ñuy tette di wan yoon bu baax di ñuy xamal nag euh, yoon ni ni mooy yoon bi kon ñoo maa ngi koy sant bu baax du koy gërëm. yàlla na yàlla may jàmm si barke Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñun Sénégal ñun lu ñu am beneen dëkk amu ko Sénégal ñun lu ñu am dañ ngi war a dellu suñu xel su baax suñu borom ndax Sénégal nekk na dëkk boo xam ne ñun lu ñu am ni jom su beneen dëkk su doon sago mu am ko daal mais dañ koy delloo sant suñu borom nga ba si yàlla ba mu ñu indilee Alaaji Maalik teg ñu ko suñu loxo ñu taalibe seex yi ñu koy sante yàlla bu baax a baax ndax suñu maam allaaj maa la sooy wax si moom du jeex daal géej la daal waaw mais dañ koy sant si moom ba mu xam ba ñu xamalee yonent bi ndax fii Dakar tey yàlla lu ñuy lu ñuy wax kenn mënu ko daal mais suñu borom mu mu ñu indi alaaji Malick ba ñu xam yonent bi su woon alaaji Malick fii kenn du xam yonent ba di ko sàkkal bés. waaw sama xarit dal fi moom li ma leen yokkaat daal li ma leen yokk di wax daal vraiment ñëpp daal. ay jàmbaalan tamit aussi kenn amul seen fay ñoom tamit parce que ba ñëwee dal nan te nan waaw ñëpp ñi nga xam te ne ñëw na tamit dem nañ ziyaare ñu moom te li may leen ñaan ñoom ñoom ñu yokk ko instant yi loolu laa ñaan ñu ñu gën koo yokk moom vraiment. dal bi nag wax dëgg yàlla nag ku wax gémmiñ moom su waxul dëgg moo wax safaan wante dal bi nag wax dëgg yàlla moom ren moom avancé na ba ñu yëg ko yooyu tamit ñun ñi fi nekk ñëpp chaque jour fi fekkoon daaw mom même bu ñëwé sax dina ëndaale beneen moroomam loolu ça veut dire ma ñu ci sentir sen bop dal dal bi machallah allah limay wax chaque jour rek dañuy ñaan yalla euh muy gëna neex ren di gëna affaire di gëna yok rek di gëna neex wa ani bi di ñëw gëna neex bi té am nañ am nañ ki pas-pas bi am nañ yene bi yalla na yàlla matal yene bi rek ñu lañu bëgg ak nek suñu xol lañu bëgg ñun yalla na ko yalla def. waa ñun ñëpp yéene bu ñu am pour def fi màggal yonent bi yal nañu ci yàlla may yal nañu yàlla fekk mais may fekkee rek man li ma mënut a wax nii quoi si <laughs> mbuuram mais yal nañu yàlla ñu fekkee li nekk sama xol man ak la may yëg man yal nañu ko yàlla defal rek waaw am nañu yéene bi bëgg nañ ko te wax dëgg yàlla nabu moom nabu dafa doon suñu yaay ndem suñu mag waaw suñu yaay la suñu lépp la doon ku baax waaw doon ku baax si ñun wax dëgg yàlla. mooy li ñuy wax rek moom soxlawul dërëmu kenn moom day bëgg lépp mu koy yenu te loolu muy yenu nag ñu dañ ko bëgg yennil ñu ñu jël suñu kàttan suñu dool yëpp def ko si te fii bul defe ne yow lépp loo def fii si guddi yonent bi nit nga ko defal sa bopp nga ko defal parce que kan nga ko defal yonent bi waaw màggal yonent bi muy lépp muy lépp muy lépp dañuy sant yàlla bu baax moom ñu ñëwee ñu fekkee ñu fekkaat bii di ñëw ñu gën a yokk affaire rek wa parce ñun dañuy ñaan yalla tamit ni ñu nek ni muy taalibe cheikh ñu déssi parce yombul yalla ñu yalla def ay taalibe cheikh yombul de man xamna ni yombul man xamna ni yomb la ak la gis yombul yalla ñu ko yalla def nabu nabu lima ci mëna wax sax dafa bari mu mako dugalon dugaloon kon du ci xej ndax nabu da fay dom jo xamantene dom ju yarula doom ju bax la dom ju xam mag la dom ju am teranga man ma nga kaw la de way sama dara mankul suma ma mbubu mu def ko jënd sama tabaski def ko jënd luma bëgg rek bu bëgg na luma neex rek neex na nabu maa ngi koy ñaanal limu mun ren yal nak ko yalla yok bu ne ba kër gi fess del del del kontan na nak ndax fi dara wu fi lépp loo xamante ne rek indi na ko fi rek ay carton carton la te ba léegi des na mu ngi nii ci sama gannaaw mu ngi nii ci sama gannaaw kon sant naa yàlla bu baax di ko ñaanal taxawaayam yàlla na yàgg. bon moom na bu jaw nag ñun mënuma ma cee wax lépp lépp lépp parce que bu ma ko naree wax fii lañuy fanaan sama yaay ba mu dëddoo ba tey na Nabou Diaw nekkul ci lenn lu dul ci ndigalu sëñ na bu Diaw nanguwul ñun ay magam di xiif. nanguwul ay rakam di xiif lu mu amul lu ne def na ko ci magam walla mu def ko ci rakku bi nga xam ne man moo ma yor ba ma nekkee xale bu ndaw lañ ma lañ ma jël jébbal ma ko ba ma demee ba commencé doon muskaalaaf ma jugewaat fa yàlla di def àdduna di dox àdduna di dox ba ma delluwaat ci sama yaay sama rakku boobu ñun suñ yaay dafa teel a làqu muy làqu ñun ay gune lañ mais daal ñu ngi yàlla bu baax foog naa ni lépp lu ñu doon jaarloo fu ne ci lu baax ñu ngi si tegg wuñ ko benn yoon yàlla nañu ci yàlla gën jàppale. ah ñu jéem a mànkoore doon benn ñun ñëpp ñu mànkoo doon benn juboo suñu biir di waxante dëgg waaw ah, di waxante dëgg di jéem a jàpp jàppalante bu baax bëgg nañ nag ñun sa bëgg nañ nag bii di ñëw moom du mu romb fii waaw lii na tàmbali wi la waaw loo gis nag si benn lay commencé waaw nit ñi dañ ñaan na na yàlla na yàlla maam xalifa moom man maa ko bëgg sama biir xol xalifa Malick maa ko bëgg sama biir xol sëñ Babacar moom su ma duggee si doom sax man daal mënu wax daal ndax sama demee su may génn du ma ànd ak sama xel kon duggee si sëñ Babacar du ma xam lu may defati tamit waaw mooy li ma la wax rek sëñ Babacar moom kuy wax si moom. day jeex ndax luy naan xale yi mujjee juddu te gisuñu mbay mbay la ñu xam mbay la ñu wóolu waaw ndax sëñ Babacar dafa nekk koo xam ne suñu borom moo ñu ko jox mam Alaaji Malick njabootu maam Alaaji Malick amuñu lu ñu mun a wax ñun njabootu maam Alaaji Malick amuñu luñ si mun a wax nag ku nekk nag sa wasila ku nekk ka nga jox sa xol mais man sëñ Babacar moom ay Aida man ay Aida mu sëñ Babacar si man maa bëgg sëñ Babacar sama biir xol billax wallax lu dëggu laay wax nii ñëpp xam nañ ko si man te yàlla na ma yàlla def taalibe Cheikh man Aida. li may ñaan yàlla moom ak ñëpp yal na yàlla yal na yàlla daal defal jàmm nag dafa mën yal na yàlla defal jàmm te aussi maanaam tamit ñi nga xam ne ñoo faatu si kii bi mbëkk mi yal na yàlla yërëm xaar leen àjjana pour encore ñu yeesalaat waajur yi nga xamante ne nii dañuy jël seen xaay teggi na pour yóbbu seen doom yi loolu tamit c'est normal bon loolu nabu loolu euh, dañ ko ko yare nabu dafa bëgg nit bëgg na ko am fula bëgg ko am fayda ci boppam surtout nag nangoo liggéey nabu jaw boo ko fekkee tey su koñ ba xale ak mag pa ak kum doon boo ko gisee ba jàkkaarloog nabu jaw di ko jox cër boo xam ne amaana cër boobu da nga naan mais kii lan la defal suñu borom ba cër mu am ko dedet mu ngi mu ngi defal suñu borom nak suñu borom tam mu ngi jappalé bo gisé xalé di daw di nan kër nabu nabu xalé bu am problème dafa melni mom mo am problème ay rakam ku ci am problème dafa melni mom mo am problème même man ni ci nga xamni magam la bi sa yu ma amé problème nabu jaw dotul lek dotul nan parce que fogg na nit ku oyof te yëg nit moo ko mën ci ay rakam wala ci ay magam. man daal comme que taay moom xam nga dëkk yi moom dafa met te léegi moom ku nekk sa loxo jotul sa ginnaaw gisoon gis naa daal suñu boole woon ñun ñëpp suñu doole waaw def benn genre affaire bu ndaw ku si soxla sax ñu mun ko jël jox si loolu loolu moom dina gën a rafetal àndandoo wi gën a yokk dëgërantal diggante yi quoi. mooy li ma la wax ñun ñun ñun léegi dekkatuñu ay xarit ay doomu ndey lañu ñoo bokk ndey ñoo bokk baay parce que dañu boole la dañu bokk lu du ndaw mooy lan taraxi bi taraxi bi ñu bokk nekkul lu ndaw nekkul lu ndaw te taraxi bi lu siy dugal du hasard du neen te lu siy dugal yow sax xamoo ko lu siy dugal doo ko xam sax wallaahi azim. Ma xamna lolu sante yalla rek ñu ngi sante yalla bax yi man mënu ma wax sama xol may wax wallahi azim parce que li dafa neex dal li dafa neex bo ñi ñew fi bëgg na leen soñu ni comme gamu bi suñu gamu la ñun goor ñi nga xamni ñun ñofi fi nekk ci gamu gi bo war nañu gëna mëna progresser progressé bo xamné di togg ay xewal di joxé gagné gan yi di ñëw ñu leen ni téru téru bu rafet ku fi ñew do mer do xif do raflé bon sank bima ma ba bi ñuy añ ma ngi naan sama ben boy bu ma jégé mané ko ñun goor ñi war nañu mëna togg waxtaan amana sax mëna ko jallalé fi ñom buñ ko déggé seen xel dina nek ci lolu inshallah rabbi dama bëgg déwén ñun ñi nga xamni ñun ay goor lañu suñ ko talé té mën ko té féké ko sak ané gamu bi di ñëwaat ñu jëma yow yeew benn gàtt mais gatt bi boko déggé ñun goor ñi ñun ñoy def suñu participation après jigéen ñi fekk suñu ci parce que at ba at dafa yagg ñun goor ñi ku nekk war nga mëna def lu bon bon bon benn 25000 bo xamné ak nuñ amana buñ ko dajalé war nañ ci mëna am ben nak yok suñuy teranga suñuy gan buñu ñëwé dal di bëggé man lool mo nekk sama xel. wa du leen ñaax moy ñi ñi di ñëw ci dal bi nañ xam luñ fi indi rek sa xam né ne fii dëkku bu sel la so fi ñëwé rek né na la fi na la fi lu sel tax taxo a waaw di japp di julli di di di di ñaan. waaw parce que moom bu fi dara bu fi dox dara lu caaxaan dëkk maam Alaaji Maalik bi dara lu caaxaan doxu bi waaw yàlla na yàlla yokk leeram. man lu may wax chaque jour rek taal bu seex day dal taal bu seex dangay dal sooy dem fenn sa dëkk yow danga war a def da war a yiw defu yëfu nit bu baax civilisé ànd ak dal waaw ndax ñu suñu. suñu sëriñ loolu la ñu xam daal dal du waxee ndànk du doxee ndànk waaw suñu ànd gi nag yàlla nañ suñu borom gën a taxaw waaw lu ñu mun ren si déwénee ñu mun la ko ëpp waaw te lu yàgg na kii yàlla man ay Aida lu may ñaan yàlla na ma yàlla may kër Tiwaawoon incha allah rab suñu borom mun na ko te dina ko def incha allah rab di ñaanal ñëpp jàmm wax dëgg yàlla di ñaanal suñu jigéen bi Nabou tamit di ko ñaanalati wax dëgg yàlla ku baax la ku ñu bëgg la. di ñaanal tamit suñu mag Aïda Aïda Diallo vraiment ku baax suñu la wax dëgg yàlla moo daf ñuy soññ chaque jour daf ñuy soññ day jël téléphone am dañuy soññ paasan a ah, gàmmu gi ñëw na lii ak lii lan lan lañu siy def lañuy préparé waaw instant yi nii commencé nañ préparé gàmmu bii di ñëwaat incha allah 2025 ñu ngi nii di ko préparé nii si la ñuy waxaat nii ñu chaque année nii lañ koy ñu daal nii lañ koy jàpp ñu daal yonente bi moo ñu ñor yonente bi ak cheikh ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di sant gis naa seen taxawaay léegi man loolu yow man dama la koy bàyyee parce que man fa ma nekk dafa sori amaana jot bu amee moom ak lu mu xat-xat-xat gàmm bu ñëwee man dinaa ko jaayante ñëw incha allahu rabi bu ñu fi yàlla bàyyee dama bëgg yow mii nga xam ni chaque année yow tam yaa ngi fi ci wetu Nabou jaw man gis naa lépp xam naa lépp magum jëmm laa yow nga xam ne da nga yërëm Nabou Diaw bu jaw fu mu munti nekk saa yu la wooyee da ngay ñëw bu la woowul sax dinga nga ñëw loolu tam man maa ngi la koy sante quoi yàlla guddal saw fan li nga nekk nii di ko liggéey yàlla na da ci yàlla dafa njott boo xam ne yow yaakaaroo ko woon taxawula taxawu sa njaboot guddal say fan nga gudd fan bañ lay weer ak a weer di ñaanal Cheikh Omar bi nga xamante ne moo waral li lii lépp nag Cheikh Omar si di ko sant di ko gën a dénkaat nabu ndax nabu amul kenn ku dul moom mooy wasilaam mooy léppam kontaan naa ci moom moom itam maa ngi koy ñaanal taxawaay bi yàlla na yàgg ci ci moom. Binta daa baax bugg nit waaw baax na bugg na nit wax dëgg yàlla bi ma ko xamee léegi dara lu ñaaw mos a dox suñu diggante waaw gàmm bu jubsee dina ma oo lu xew keram yi dina ma yegal waaw bu baax la bu nit ah gudd fan ak weer waaw. maa ngi koy ñaanal gudd fanag ak weer daal. Hmm. na ñu ngi ko ñaanal ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla dimbale yàlla na ko yàlla jàppale lu mu mun ren yàlla na ko mun lu ko ëpp ci barke yonante bi. ñun suñu papa ñoo fi nekkoon ñun ñu doon xale te ñu doon mat kon boog suñuy doom ak suñuy sët ak ñuy jarbaat war nañ leen mun a jàppale. aussi itam bu ñu gisee kenn koo xam ne da ciy def naka su dul noonu war nañ la mun oo nga bañ cee xam ne ñun say kilifa lañ ñu waxtaan ak yow ci àdduna fi nga xam ni soo fa jaaree yow di nga ci gën di nga noppal say kilifa noppal sa yaay noppal sa papa noppal say nijaay. maa ngi remercier waa dal bi yëpp di remercier ñi fi nekk ñëpp di remercier surtout Nabou Ndiaw Nabou maa ngi koy remercier bu baax du sant du koy gërëm di di remercier ñoom Aïda di remercier waa kër Nabou Ndiaw yëpp si kàttanu yàlla ñëpp. di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw maa ngi sant ñëpp dal bi macha allah kontaan naa si yéen. suñu dal bi dañuy sant yàlla rek ak di sant yàlla rek ndax mu gën a avancé gën suñu borom gën ñu jàppale mu gën a jëm ndax ba ñuy door Tiwaawan metti woon na torop waaw te suñu njool fu da koy wax ne door door si amul mettit yow lu ngay fee la ngay jëm la ca kanam kon du dëgg waaw mais dañ koy sante suñu borom rek. ndax li ñu mun ren ni si déwénee dinañ mun la ko raw waaw dañuy sant maa ngi lay sant yéen sama càmm ñi may àndal di sant ñoom nabu ndax suñu ànd bi dafa dëggu man dalee ànd ba léegi yàgg na waaw te ba tey ñooy ànd waaw di yëkkatindoo di dóorandoo te lépp nag maw doo ko waral. waaw waaw kooku tamit dañ koy ñaanal yàlla may ko wér waaw parce que ñoo doon ànd doo di ñëw fii chaque année gam mais yàlla xëy na jagi jagi di moo te ñëwul. di ko ñaanal yàlla may ko wér xolam yëpp nag mi ngi fii parce que Amady mi ngi woote téléphone ndeysaan xolam yëpp mi ngi fii ak xelam bi waaw yal na yàlla may wér ba ñu ba gàmmu gi di ñu ñëpp ñu mën ko fekkee. man daal maa ngi remercier suñu jigéen bi wax dëgg yàlla nag suñ ko fi fekkee chaque année dinañu tijjil porte yëpp lépp lu ñu soxla mu taxaw si bu baax a baax waaw jàppale ñu si fànn yëpp nag soxlawul suñu dërëm. doo doo même soo ko joxul sax saa yu ñëwee sax année ni meloon lay mel doo gis benn changement si kanamam wax dëgg yàlla nag kooku kàccee nga laa moom. ñi fi dalit képp koo xamante ne ñëw nga muy góor muy jigéen ak direction boo mën a jóge maa lay ñaanal gudd fan ak wer te yàlla yóbbu la ak jàmm ci kàttanu yàlla ak jëmu Rasulullah ak barke Xalifa Babacar Sy mii. yalla nga yegg ak jamm fekk jamm ñu dañu contane parce que li am ni dafa neex diñu am ni dafa neex wa liñu am ni dafa neex li li li li amul duko ko amul duko ko ma sha allah yalla yàlla def jàmm. loolu weesoo tam comme groupe bu whatsapp bi nga wax nonu nonu nonu lu wara mëna la parce que la mu wara nekk jotaay biñu jotaay fi ci gamu gi amul numu fu ne la di jóge ñëw toog xamuñu kii fii la dëkk xamuñu kii fii la dëkk xamuñu kii fii la mbokk xamuñu kii fii la ñun daal ne ko sëñ Babacar waxee woon nañ ko santale yàlla ci gàmmoom gi bu ñu ko yàlla maye de de continuer balaa yow mi dini te yàlla nañu ci yàlla jàppale ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seen fay yàlla même seen fay yal na leen fay dafa len jamm sama dom yi nga ne foo dem ñu topp ma bëgg ma bëgg a dee sopp ma yàlla leen yàlla defal jàmm yàlla may leen gudd fan ak wér ñu yàgg ko euh, ziar si kattan yàlla yonent bi waaw merci. toute toute l'actualité à temps réel à temps réel sur Référence TV Référence TV la chaîne de l'innovation